ma c'est euh, une euh, xaw na cee junj tuuti rek par rapport ak li mu doon wax moom laa ko bëggoon wax kon donc li ngay wax lépp dafa mel ni yow tam victime gu rëy nga ci yu bëri mais man yooyu moo wax man su ma waxoon dëkk bi tas man victime la bu mag sax mais du ko du ma ko wax bis bu wax jotee nag dinaa ko wax waaw donc euh, papa peut-être lan ngay lan ngay daanele waa ci père waaw ginnaaw moom liggéey kii liggéeylukat la te liggéeylukat bi liggéeykat rek lay wër te nee na dem gànnaar ndaw lu sawar moo ca gaaw te kii dafa gëm boppam sama doom ji rek laa bëgg mu jox ko aw sas doo wax président Macky mu jox sama doom ji aw sas mu liggéey. président Macky ñu war a jox sas bari na. mais président doom yi dama ni sa doom yi mais dafa bëgg a jiite réew mi xam nga li ma ah, ah président Bougane dafa bëgg a jiite daa bëgg fi Macky Sall nekk gunu ci jël réew mi. fi Macky Sall fi président Macky Sall nekk. d'accord fa la bëgg a dem mi ngi liggéey. xam nga nag yéen mais eggagunu foofu plateau bi non non eggagunu foofu eggagunu ci mu jël réew mi. bu leen tokki plateau non non mais yooyu li ngay wax ak moom li muy wax benn la rek bu leen tokki plateau bi takkal bugaan euh, fas yaa biir. ci biir dama ko mu jox ko aw sas. non man maa leen gën a bëgg bugaan fukki yoon ak juróom. la ah. ma jeexee bugaan jeexu leen koog bugaan. ba ma koy jeexee moom jeexu leen non déglul ma rek xam nga nit bu mu toog fii yow bërki dem sax dégg naa la ngay waxaale sa poste. may waxaale la <laughs> may wax eh eh yow lay def Gaston eh, eh Gaston yow lay def yow rek eh, eh xaali yow. personne noonu personne eh, noonu. déedéet rek. na ma déglu na ma déglu ah, non. lan la bëgg a wax. non ci am mbay ñàkk. Bougane. na liggéey Macky Sall xaritama de. waaw xamante noonu. su bëggee wax dëgg it dana ko wax nag. pour défendre la démocratie. mais àndul keneen fii. àndul ak benn leader fii léeg-léeg nag ñu toogandoo te ñoom ñuy toogandoo sax bëggantewul kenn yéenu sa morom jàmm waaw ñoo doon def kër Ousmane Sonko di ko wër yëpp sunu saa yi ñu dugal Ousmane Sonko ci kaso bi déet déet waay la wax mën may wax nëbb ma ko mais père tamit ñoom seen biir mais dama ni xam na xam nga nag li ma xam dafa bari Ousmane ko ci moom xam na ni kenn yéenu ko ci jàmm parce que dafa na ni su jàllee ñoom du lu jàll politique lañ ne c'est de bonne guerre mm. loolu am la ci benn saak tamit. bugaan tolloogul ci am ba ñàkk tey jii li may yéene buggaan defe naa ni moom sax yéene ko boppam. kon ko yëg xam na ko man xam naa ko. Ah. question mooy parce que man du ma jaay nit du ma waxal nit loo xam ne aussi man wóor na ma ni lii fa na dem ànd ak président Macky liggéey man tey su ma tey tey mu ànd ak Macky liggéey parce que Sénégal la ñuy loolu président mais président Bougane bu ko defee ay militants mere ko de. yow ñu mel ni yow Moustapha yow waroon <laughs> yow yéen a non yéen a dama lay dog président Bougane ay militant ñu non non liggéeyloo ban militant ban bàyyi ah, la a sillonné ndax mën na liggéey non dama ni yow yow yaa ngi ci daal leader yi de maa ngi ci kat eh maa ngi fan fépp ci Sénégal loolu foog foog ma eh, la Gaston nga ne maa ngi maa ngi fan ci <laughs> ba El Hadji <laughs> euh, Gaston gis nga gis nga Bougane <laughs> tolluwul ci am ba ñàkk ah, militant yi yëpp ak yi militants yi Macky Sall am yëpp mm. ñoom ñëpp réew mi leen tax jóg réew mi lañu mm. bëgg réew mi moo am solo nan bàyyi su nit yu nekkee ci opposition wala Bougane sax nekkul opposition Bougane ah ouais non nekkul opposition dafa am mouvement gëm sa bopp di wut nu xale yi euh, émancipé nu mu defaree xale yi mais du amul parti d'opposition du opposant mm. yéen ko bëgg a def opposant mais moom du opposant tey Sénégal ñëpp ko bokk tey su demee tey ak ñi Macky Sall àndal ñëpp mais li am solo mooy le Sénégal. Hmm. mais Sénégal fi ñu toll léegi ku jógee ku farul ak Macky soo demee ca Macky Sall ñu sikk la. dëgg la ku jógee ca Macky Sall soo demee ca opposition ñu jël la. la en euro loolu moom la. terp la en euro bëgg def euro. Hmm. parce que yow jógee nga ca Macky Sall dañ lay terp. Hmm. te ku fa dem ñu teg la. mais dañ ne Idrissa Seck jógee na fi rek dem ca Macky Sall ñu tudd mburoog soow mais ñu jógee ci Macky Sall dem fi xanaa mburoog poson la. déedéet waaw mais mburoog poson mais mais poson la. parce que jógee ci pouvoir def opposition. Ah, waaw waaw non. non non waxee tur bi ñoo jox seen bopp turu mburoog. mais waxin la rek mais ba mu ko joxee seen bopp. ci benn discours euh, bu mu doon def bi muy jël euh, service. rek ngeen ngeen profité ci nag di ko wax. te pourtant nit ñaa ngi jógee ci. pouvoir bi dem ci opposition bari nanu très bien muy mburoog posal den wax loolu. kon Gaston ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax. Mm-hmm. d'avoir répondu à à notre invitation. merci beaucoup ñu am bu rëy nag nga ubbi grand plateau. jërëjëf mm-hmm. di la di la ci ñaanal di la ci remercier également. mu nekkoon waxtaan bu am solo ma lay xamal aussi que ni que yooyu ma tere xam nga léegi. Hmm? man dama am sama site. gaston production point com ku bëgg a seetaan lamb foofu nga koy seetaanee. ok li moo tax nga accepté ah, de bonne guerre. mais yéen yéen su ba ma leen di jox mais ba ma leen di jox ba ma leen di jox sama làmb bugaan gay bugaan sama làmb yëpp presque fa la daan nekk keroog ba ba ma ba ma signé ak euh, TFM bugaan ñëw ñu ni ko du dugg dama leen di kon ne làmb ji tas parce que maa moom sama moom xam na ma xam dëgg la sama doom a nga am sitam boo xam ni fii ak quelque temps yàlla na ma koy ñaanal yàlla post Afrique yàlla na mel ni télé yi yëpp parce que waaw yéen ñëpp dama leen di demoon sax mais moom est-ce que dinañ xam naa ñëw ba plateau dañuy wax ne dañ ñuy débauché yóbbu ñu xam na xaw na doy waar mais yow rek non passation de témoin lay doon bugaan ku ma laaj mu jox ma ko allah di la remercier bu baax a baax encore une fois euh, Père yooyu tamit euh, waxtaan wi neexoon na torop ñu lay jaajëfal bu baax a baax bu baax xam naa di la retrouver rek mercredi incha allah ci gis-gis ak Safia mais mais xamee nga waa jële sol t du tigre léegi bi daan daw TFM. te léegi mu yóbbu ko 2S. Ah, macha allah Père Mbaye mi ngi nii mooy per mbay mooy coordonnateur Gaston production. ñu ngi koy bu baax a baax. coordonnateur ñun ñëpp a nekkoon ensemble Gaston production. ah Mbaye waay mbay ku baax sax ku humble. papa yow foo nekk day dox. <laughs> ah temps yi nag temps yi nag non yi nag. non père fii la ne fii la ne non fii la ne non temps yi non fii la nekk seen fii la nekk. temps yi la gars yi koy xëccoo de. mooy xaritu internet yi en tout cas donc Fatima yow itamit ñu lay remercier bu baax a baax actualité bi amoon na amoon na solo Mouhamed yow itamit également peut-être di la permettre nga wax ku la solal c'est c'est important ci la bokk ah. Fatima <laughs> ah oui moi je vais en parce que madame Ban mu ngi toog sànq ba tey di di di di di di di kii di sàcc modèle. <laughs> di capturé maa ngi koy nuyu en même temps bu baax a baax xam naa dinaa la wax léegi kan moo ma solo incha allah. mu ngi noonu di remercier rek ki nga xamante ne moom moo di Aïda Faye moom moo jaar ci yëre bi comme ni mu koy defee saa su ne rek di remercier également sama grande sœur bi joxe tissu bi daa <laughs> koy jox moom moo joxe tissu bi ñu jox ko ay Faye mu daal di dagg ñaw bi donc di ko remercier bu baax a baax. am na solo en tout cas c'est très joli euh, Fatou <laughs> honneur aux dames. man man man man comme rek sama sponsor de tous les temps Khalifa Mbergane Lifa Couture 477. 77. <laughs> 77 442 29 16. yéen a dàqa xarmat ñëpp. merci <laughs> en tout cas euh, Mouhamed ñu ngi lay jaajëfal yow tamit. bu baax a baax merci à vous Nene merci bien. xam naa ci yow la ñuy tëjee nag déjà nga wax ñu euh, kan moo la solal c'est important mais aussi euh, yow sunu suñu ngeen taxawaat fii